ayca di leen bëggee bu baax a baax di am mbégte ak contentement di jano génn chaque jour comme ni ñu koy defee ah damaa toogal nag ak beneen champion war waxtaan ak moom te olof Ndiaye dafa ne ku fóotal mbëtt roccal bar ginnaaw ba ma dalalee ki nga mooy Boy Dakar damaa dalal adversaire am di nga xam ki nga xamante ni mooy caatu ngéwal gi dinañu wax na la moo la moo indi caatu ngéwal gi ayca caat maa ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyu internet yi. yee nday maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli si yonente bi di gërëm sunu ñaari waajur ñu ngi nuyu ngor wakaam yoofu yëpp di nuyu àdduna fépp fu supporteeru caatu ngéwél nekk ñu ngi lay bëggee di bëggee waayof di jël nuyoo waayof di ko teg si loxo xalifa général bi maam Duudu Laay di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér di ñaan Baye Abdoulaye Thiaw yàlla yokki leeram te tas nu si barkeem te jàpp na ne mu ngi ñuy tas si barkeem sax ndax waa am na benn doomam bu fi ne muy soxna Thiaw Laay yaafaati dañuy jàppale bu baax a baax a baax di ko woowaat si kombaa bi encore une fois di woo waayoof di nuyu waayoof di nuyu waa Leewtoo bu baax. di la ayca ñu ngi lay fay bu baax a baax ci noonu nag balaa may dugg ci combat bi rek dañuy ñëw tudd ci yow lan moo dugg ci làmb. waaw lu ma dugal ci làmb xam nga rek doon xale dëkk dëkku boo xam ne dëkk lépp la muy yoof mm-hmm. te ku ne xam na ni. danoo am tefes da nga bëgg da ngay bëre nga bañ da ngay bëre. maa du ci tefes nga ni fooy. voilà ñu nekk ci fooyoo bëre ba yàlla def tey jii ñu nekk ci làmb ci mhm. euh, nga dugg ci làmb ji sa tur daal di koy tuddee li nga xam ne mooy caatu ngéwél gi lan moo loo indi caatu ngéwél gi. waa caatu ngéwél gi moom ku ko dégg rek war naa mën a xam ndax seel a ngéwélite. Hmm? waa ay géwél lan tamit. Hmm. mooy loolu géwél si nday géwél si baay. Hmm. kon nag loolu lu jaadu la quoi. te tamit dafa am suñu benn track bu doon bëre tamit tudd caatu ngi woon. dem ba si biir xaw a arrêté après ñu ñu yow daa nga daal di relais bi. mbaa doo def ni moom. non kooku mbapat la jot a bëre ñun kañ ñaanuñu yàlla ndax instant yi moom xës nañ ba dugg. Mhm. xanaa kañ doon champion lan si ñaan rek. Mhm. incha allah incha allah yàlla mën na ko te yàlla dina ko def ginnaaw ba ñu jukki nañ ko lool wax na la nee na caat la ci ngéwél gi c'est le nga dugg ci làmb ban combat moo la gën a marqué sa combat yi. waaw man moom làmb yëpp ma làmb yëpp ma ndax tey jii làmb dafa doon loo xam ne ndam bu mën a doon daa neex. Mhm. defet mën a doon neexul. Mhm. moo tax làmb sama combat yi ma bëri yëpp ma neex mais nag surtout sama premier combat mhm. moo ma gën a neex ndax boobu maa ngi dugg te ma lu xew. sama ma petit baabooy bokk na si combat yi gën a marqué sama làmb yee. te mooy sa idole. Malick man ñaa borom dóor yi. waaw Malick ñaa ak Dubun ak Bébé Birahim ak ah, man damaa bari. yow yow léb lébu gi nga ne lébu gi rek. waa mbëru yoof quoi ah, ñooy ah, sama idool waaw ñooy sama idool mhm. nga dugg ci làmb di leen fàttali moom moo mujjee daal nga xam te ne mooy alliance biram bëre comme ni ma ko waxee adversaire daan ko jëlu bu rëy boo xam ne dafa bëri ñu naan caat caat caat caat nga jóge ci loolu ñu jox la beneen mbër waaye beneen daanaan di booy Dakar ndax nga koy waajalee. waaw pas Dakar comme li may wax rek. pas Dakar man moom ñu ngi waaj ñu ngi ànd ak sanuy mbokku. te ñu ngi ñaan yàlla mooy nu ndam si kawam. dégg na nga koy wax paa waaye dala koy nangul ba daal yow ngay soog xam ne boom paa la wala booy la. non booy lu mën a xew paa la. ak mën a xew. yàlla ñun nag palaasu yàlla sunu borom duñ fa taxaw. mooy ay doomu aadama lan dañuy sabablu. lépp lu nu war dinañ ko def. mais nag yàlla mi nga xamante ni moo am ndam. ñu ngi ñaan yàlla mooy nu ndam lu seddu guy. ba pare di tàllal sunu loxo njabootu ahlu bayti rasul gi bu baax a baax. di taalal suñu loxo aussi man sur Diouf mi nga xamante ni moo nekkal Serigne Touba Yoff mhm. di ko wax ni Diouf combat bi sa kombaa la ñu ngi lay tàllal suñu loxo bu baax baax di la ñaanal yàlla gën a wéral cër yi. Mhm. combat boobu leen fàttali ba léegi Assane Ndiaye boroom Bawol production ah Bawol Bawol bi moo ko taxawal ba relation nga am ak Assane Ndiaye. waaw Assane amuñu benn relation mu ngi mooy door a tëgg. Mhm. xëy na nag mooy loolu relation làmb nii daal. ndax man ak moom. bi muy dëgg sama combat si la ñuy door a déggante. lamb daal moo leen boole waaw mhm. mag waaye bis bu mag la seize fu ne nii ci préparation physique ñaar séquence d'entraînement yi moom combat bi wax dëgg yàlla depuis semaine bi nii ñu nekk ak semaine di ñëw benn séance la ñuy def tëdd reposer suñu yaram bu baax a baax. Mhm. pour bëgg préparer booy Dakar aussi ma koy wax benn wax maa ngi ko dégg mu toog fii naan làmb ji dama jaral dugg na. Mhm. booy Dakar mii mag bu jaralee man mii xale nan laa war a def. yow làmb lan la jaral. sama bakken mooy li gën a foor ci man mhm. tabarki Seydina Muhammad waxumay caaxaan mhm. billaay wallaay taalaay mhm. su fekkoon Boy Dakar tey jii ñaanuma ko yàlla yàlla dani ma Boy Dakar da laa war a daan wax ma ko si guddi gi ne ma ndax ma jël la ma ni ko jël ma moo ma gënal hmm? billaay wallaay yow nga dee moo gën a Boy Dakar daan waaw waaw jàpp ne moo la ëpp doole bis bu ngeen bëree mu daan la boo leen xeexee mu duma la. waaw loolu lépp dama ko koy nangul moo ma man moo ma ëpp doole moo ma ëpp kàttan moo ma dàq bëre moo def lépp mais yàlla mi am ndam yàlla ma may ndam si kawam. jàkkaarloo sama caméra nga tontu Boy Dakar. Boy Dakar yaa man yaa ëpp doole yaa ëpp gàllaaj yaa ëpp lépp mais yàlla naa am ndam si kaw yàlla mi nga xamante ni mooy may ndam yàlla na ma may sa kaw. Mhm. Mhm. <laughs> Fama yaa ko dégg de. Hmm? caatu ngéwél gi man mosumaa gis caat nee na pas Dakar lay attaqué kenn mosul gis nii nga dëkk fi nga xamante ne mën naa xam lébu xam aada ak mën a xaar ci ki nga xam ne mooy caatu ngéwél waaw caatu moom chaque jour rek gars yi la xaar ci moom mooy dinañ ñëw dinañ tuus mu neex dinañ ambiance dinañ indi ay supporters dinañ bëre incha allah bu soobee suñu borom dinañ daan. ñu ne ci biir géew bi buñ nee mbër ne mbooloo buñ nee mbooloo ne supporter ful bi daal di ñëw. ñi gis fu mu ne nii li am ci làmb ji muy phénomène bu sa mbër daanee nga yàq bu sa sa mbër daanoo nga yàq yow en tant que lutteur la nga ci gis. non côté boobu moom dan si xam nga rek ndax tey jii nii ñun ñëpp supporters yi sanuy supporter lan muy supporters keneen samay supporter lan man samay supporter dañuy supporter yeneen mbër mm-hmm. mais nag dañ leen di ñaan xam nga li nga xamante ni mooy làmb ji mm-hmm. fi muy am. stade boobu noonu dañ see jël fere si xaalis pour ñun. te deru làmb maanaam gars yi dañ koo adressé lu ñaaw. Mhm. te tey jii ñu ngi xaar benn faay amaat si rek pour nu mën koo arrêté. Mhm. te tey jii bu ñu ko arrêté ñu si bari dëgg la ñun la ñuy bëggee. Mhm. mais supporters yi ñu si bari am nañ si lu ñu jàpp. te ñun lii mooy sunu lépp. te nag nit bu fekkee da nga koo bëgg ba koy jàppale. Mm-hmm. li nga ko war a sàmmal mooy alalam. Mm-hmm. te ñun arène nationale mooy suñu alal. Mm-hmm. ñuy ñaan supporters yi ñu ñëw si fair play supporter seen mbër kenn mënul bañ supporter. ba pare aussi di ñaan di di lancer benn message. muy promoteur yu ñuy wax service d'ordre yi donte ni suñu ay mbokk lan suñu ay frère lan suñu lépp lan. bu dul woon ñoom suñu làmb ji. xëy na du yegg mm-hmm. mais ñu xam ni tamit làmb dafa baaxoo supporter dafa baaxoo xëppoo ndox. Mm-hmm. dafa baaxoo ruube. Mm-hmm. loolu lépp da ko baaxoo mais nag si lépp nga teg ko si at bu rafet quoi. ñu ma waaw ñu bàyyi supporter yi ñu mën a supporter. mën a def liñ bëgg def. yëngal si kaw ma jàpp paa bi dóor ko dóor bi métti daan ko incha allah. dama koy duma de caméra bi moom moo bu taxawee dinaa ko dóor dóor yu metti hmm? incha allah jour ji xeex ngeen booy Dakar déggoo lu mu bëgg bëgg naa mais nag dama ko dama koo dégg mu ne caatu ngéwél dama koy duma daan ko hmm. duma boobu mu wax bu ñëwee ba si biir géew bi na ko dëggal bu ko dëggalee naa ko duma duma yu metti ndax man ku toll nii di bu ma dumaa xaw ma man fan laa war ku toll nan nii kii lan lay wax nii ku toll nan fii kan moo fi toll nii booy Dakar taabul ji sutantewnu de <laughs> yow yaa ngi ko wax Pa Dakar mu ngi koy métti du yow nga naa ko tollul nii. non kooku mooy loolu dama koo xeeb du dama koo ñàkk. xanaa déggoo li mu wax nee na moom Balla Gaye mooy idole waaye Modou la waaye amul vision doomu aadama booy jël da ngay jël idole ba pare ne may diw topp ay tànkam. mais maay Balla Gaye sama idole maay Modou Lo loolu ku ko dégg xam ne wax boobu lu sigul quoi ndax Balla Gaye Modou Lo nit mënul mënul jël ñaari relève yëpp da ngay jël kenn nga suivre ko ne kii mooy sama idole mhm. xam nga ba keroog suñu borom di def leneen mhm. mais na xëy na loolu lépp moom la engage mhm. mais man moom li ma engage mooy incha allah bu soobee suñu borom nee damaa bari wax mais dina xam ni man kuy wax di jëf laa dangay wax boole ci jëf damay wax boole ci jëf da dóor di fayu di songe damay dóor di màtte di gàjje di xusiwaate alaa gi waaw sëñ bi ngewel moom la fa duggee bala ngaa génn ku du cun waar yi dina. karabu sàmm <laughs> nga ne la la demee ngewel. Ah. ñëpp ay ñii dinañ tëgg ku du cun waar tëgg ay bool. te Dakar mu dugg daa mel ni baaxul. Maodo xam xamoo li nga dëgg sax le 16 dina métti dina yëngu dina neexit ndax ay làmb espoir nga boole fu mu ne nii ñu gis. mën naa ne sax du mën ci benn combat waaye combat yi jot a jàll saison bi nii amul benn grand combat bu jeexee ci jël yi des avertissement lay jeex yow en tant que lutteur nga gis loolu. waaw loolu noonu moom nu def loo xamante ne lu dul tey jii nii di wax euh, tey jii mbër yu mag yi. Mm-hmm. dafa am fu mu toll te fëlee ko yi di ko xam. tey jii ñun donte ne ay boy lan dañuy door a dugg ci làmb ñun bu ñëwee dañuy bëri. mais nag nan xam ne ñun fi ñu toll mbër yu mag yi toll woon nan fa te ban fa tolloo dañ doon ñëw di bëre di dëggal seen bopp mais tey jii làmb am na mbër yoo xam ne duñ si fere seen ay millions yu bari tamit ñëw di sorxo sorxo seen làmb man daal li ma jàpp mooy mbër yu mag yi dañ jàpp ni loolu moo dalal seen xel te làmb jeex na fi jël la ndax Balla Gaye Bombardier si daa am jox nañ Bombardier victoire am mhm. kon bu ñuy xool booy ñaata faatin moo fi jeexawul sit ta xëy na ñoom ñaar ku si nekk sa bëre morom dalaa desee arrangé quoi. Mm-hmm. mais nag ñu ngi leen di ñaan daal ñoom VIP yi ku ci nekk nga gën a xoolaat sa bopp ndax ñoom ñoo xam li nekk ci moom si ñoom quoi. Mm-hmm. di leen ñaanal jàmm bu baax. Mm-hmm. mais li nekk ci yow laa fu mu ne nii avertissement ñi jàpp ñu gis mbër buy bëre même bu dee def action ba génn saako bi yow soo ñëwee dañ lay avertir est-ce que jàpp na loolu raisonnable la. waaw mais tey jii nii géewu a nationale dafa ku dem ba fekki saako yi kañ yow yaa fa yóbbu sa bopp. saako yi fekkiwul kenn. mbër mu jéggi saako yi ñu jox la avertissement jaadu na. maa ngi dégg booy Dakar naan ay trois fois affaire da ragal yooyu bu fekkee moom la nar si maag moom na teel a wax lu leer. ndax moo gàkku doo bëri ragal yooyu la bu bëri prix mu ni xaas daw jéggi saako prix gis nga nit doomu aadama bu ñu la fayee ay nit topp sa ginnaaw da ngay ñëw nga dëggal sa bopp. yàlla sunu borom moo yor ndam. nga ñëw taxaw dëggal sa bopp wane fulla wane fayda. ñun ay xale lan mais nag danoo doon ay xale yoo xam ne ay xale yoo am fulla lan ndax ay déreeti bu lan yor. te lébu moom ku ne xam na nit fulla la xam fayda dëggal boppam. Mm-hmm. tey jii nii ñun am na yenn victoire yoo xamante ni yàlla xam na ni barki alxuraan buñ ko amoon bu buñ demee du safe. Mm-hmm. mooy tey jii ñu ñëw bëreex sunu moroom di ko daw wala dara ba am si ndam suñu demee ñun dëkk ban dëkk. Mm-hmm. moo doon dëkk boo xam ni dëkku jàmbaar la. dëkku gor la dëkku der la. tey jii mbër mu ndaw boo jógee ay nit jóg. nga jóg am ñu la jàppale boo ñëwee da ngay taxaw nga dëggal sa bopp nga bëre. saaku fekkiwul kenn man d'accorduma seetaan naa ko mooy yow mu a ay trois avertissement verbal amul. Mhm. ku fi génn nan la yëkk di jox la avertissement. Mhm. ñu taxaw ñu bëre ñun ay xalelan moom mag la nag moo tax muy wëññi fi yooyu mais man xale damay ñëw si kawam laa jëm. Hmm? amul lu ma ciy xalaat. boo ne pib nooy def. na ma daan def du ma ci bàyyi dara. ku ma ci mën di bëreel bu soobee suñu borom bu arbitre nee pip sama tànk du teg du tegaw benn paa xalaatuma ko sax. Hmm? xalaatuma lu mel noonu. ñaa ngi jàng li nga xeex bu baax. non man lépp lépp lu maa ngi jàng bëre maa ngi maa ngi sama ay grand frère maa ngi sama ay coach ñu ngi may préparé maa ngi pare combat bi. Mhm. incha allah lépp lu ma jàng. le 16 dinaa ko wane incha allah. incha allah waaye laata loolu ñu gis ngay mën nañ def sa événement sa biir koñ lan moo waral loolu. supporter nga bëgg a bégal wala xaalis nga ci ut. waaw non du loolu ñun sanuy supporter dañ leen tàmmal avant combat ou après. Mhm. pendant avant après. Mhm. ñun loolu lañ xam. Mm-hmm. ndax dañuy bégal sanu ay supporters. Mm-hmm. lépp lu bëgg ñun ñu ngi ci. Mm-hmm. dañuy organiser ay événement pour bégal supporters yi. pour tamit ñu mën a préparer xam ne seen mbër tëddul dina raw mu ngi ci affaire yi. te gars ñu ngi ci làmb ji bu baax te la 16 incha allah bu ñëwee dina xam ni caatu ngéwél ñëw na. fu mu ne nii pare nga à 100 pour cent combat bi li des bëreetul. non combat bi nag instant bu ñu demee ba fii pareewu mu man kon kañ laay pare. baytaatu forme non état de forme boo xam ne lu ma sama bët may dinaa ko def. Hmm? waaw. ayca Thiatou Nguéro gi la balaa nga tàggatoo looy wax supporter looy looy dénk sa supporter avant tout. waaw samay supporter mooy li ma leen doon wax rek ñu ñëw jéeg si oto yi ndànk dem stade ndànk yëngal nag ba mu yëngu. ndànk gi am si biti ak bu nuy dem bu nu demee ba ci biir stade bi yëngal ba mu yëngu. Hmm. ma jàpp paa bi dóor ko dóor yu metti te bu amul sens mu dóor ko mu daanu. Hmm? incha bu amul chance mu dóor ko mu daanu. nga tàggatoo waa di tàggatoo di di woo waa képp ci combat bi aussi di woo suñu monsieur le maire Ablaye Diouf Sarr di ko wax ni que kat combat bi combat boo xamante ni euh, tey jii ni combat la bu bëgg suñu carrière te combat boo xam ne am na lu bari lu muy gisee suñu carrière. tey jii ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp si jënd billet yi booy yi dem di nuyu aussi tamit adjoint maire mm-hmm. Abdounar Meng. moom moom nee na ma maa res combat bi maa res open press bi lépp maa ko res. Mhm. ñu ngi koy woo di ko woo mu gën a jàpp si bis bi yaa gën a see jàpp. Mhm. diwoo woo tamit suñu soxla mu suñu soxna monsieur le maire. Mhm. muy soxna Thiawla yaa faati. ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax di ko wax moom mu ñëw jàpp si ba pare def ñaan. ndax moom sang la. da si jàpp ba pare def ñaan diwoo tamit euh, Njambe Diop. ñu ngi woo Njambe Diop bu baax a baax si kombaa bi. di ko wax ni combat bi la. Euh, di mu Mamadou Gueye aussi. woo ñëpp nag yow. woo Mamadou Gueye bu baax non dañuy ñi nga xam ne dañ leen di woo dañuy jàppale diwoo woo Mamadou Gueye bu baax. Mm-hmm. diwoo woo Moustapha aussi. Mm-hmm. di woo Nday Mbacke sama xaritu yaay di nuyu sama yaay bu baax. problème yaa ngi commencé man Nday Mbacke. Nday Mbacke sama xaritu ah, yaay ah nay leer Nday Mbacke ah, xaritu yaayam lay woo waaw depuis Paris maa ngi koy woo. di woo sama xaritu yaay ñoom Constance yëpp di woo sama ndijaay Thias Mbaye. Mm-hmm. sama ndijaay Pape mbay sama ndijaay Danger di woo Bayaku mu ndaw. di woo Kamsaar di nuyu sama ndijaay per ma nga xam ne moo ne ci kër ga di nuyu sanu sanu famille ñëpp daal. Mhm. xam nga di gërëm Talla Mbengue aussi. Talla Mbengue démb dem nan fa. Mhm. mu am lu mu defoon may na lu xaalis bu bari. ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci kombaax bi di ndax gis na jàppam. Mhm. di ñaan li nga xamante ni moom la séentu ci ñun yàlla defal nu ko incha allah muy ndam. di bëggee mbayaar yi nag fépp fu mbayaar mën a nekk ci àdduna. di leen wax ni mbayaar bi combat bi dañ fay teg jeexal. Lac Kiri la kon nag am na lu baree baree bari lu mu laaj. di woo mbayaar yëpp fépp fu mbayaar mën a nekk ci àdduna maa ngi lay woo di la taalal sama loxo. di la wax nga ñaanal nu ñëw sa bés ba ñu dem yàlla defal nu ndam di ñaanal aussi tamit mbëri Yoff yi nga xamante ni dañoo war a bëri si journée bi. yàlla defal leen ndam incha allah. Mm-hmm. ak ñi fa am combat yi Yoff. Mm-hmm. di bëggee sunu coach su bàyyi di nuyu estafu écurie Yoff bépp di nuyu sunu président Père Baytir mhm. di nuyu waaw ñu ngi woo ñëpp daal ci combat bi. nee na mu ngi ñu ngi woo ñëpp waaye dama koy bëggee bu baax moom caatu ngéwél gi waaye dama sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo ma jàppale ah su yembee ba mel nii ñoom la Fama Dramé Dramé Tukulóor ah sama caméra bu mën bi kenn du yow ah. Oumou Maxtaar bëgg naa bu baax a baax Magne Pro borom chute yi kenn du yow nee naa leen boutique ba ubbi na ah. boo doon ñëwee. lépp ma gërëm ki ma àndal. aussi dégg nga neen waa gërëmal. waaw affaire mbër la may may naa ko gërëmal. di gërëm ki nga xamante ni moom laa àndal muy Vincent maa ngi koy gërëm bu baax di bëgg gaa yi nga xamante ni tamit ñoom laa bàyyi foofu yëpp ñu nekk ci affaire yi. maay bëgg képp kuy mbayaar ci àdduna di bëgg mbayaar yu góor yi di bëgg mbayaar yu jigéen yi. Mhm. di bëgg mafia bi nag bu baax a baax di bëgg mafia yi nekk yoof yëpp di bëgg waa Kër Masaar sama mafia alaaji paate bi maa leen di bëggee bu baax a baax baax naa ko bu baax comme ni ma ko waxee ah, man borom shooting yu nice yi kenn du moom di leen naan kan kam bi ñëw ah Sénégal daa war kon nañ dem jàppale gaynde yi waaye boutique ba ubbi na mañ pro moo ko yor Mansour Fall ak nga xam te ne mooy Modou Mané Momo ah di leen jaay mayo am solo yu rafet original mayo da leen di jaay dama bëgg ngeen ñëw daal di demandé def leen lu rafet a rafet a rafet flocage daal di leen defal shooting lépp ci mañ pro damay di béggee bu baax a baax 100 pour cent assurance kenn du yow jox leen dig daje beneen yoon ci beneen waxtaanu làmb jaajëf. jëfati